abonné leen ci suñu chaîne saa su ne xibaar yu wér te mi ak ci bitim réew. fan yii yëpp kenn déggul yeewi askan wi ñëw wax ak sénégalais yi wante ku ne xam na ni leader boo jël ci yeewi askan wi mi ngi ci coalition. bi nga xam ni ñoom ñoo waroon dem élection présidentielle donc ku nekk individuellement li nga waroon wax collectivement dans Yewwi Askan Wi ci coalition ba nga nekk organisation ba nga nekk le combat que Yewwi a toujours mené yaa ngi ko doon mené foofu mais li wér mooy Sénégal ñëpp xam nañu ni. si l'heure est grave danoo bëgg yéeg dégg yeewi askan wi danoo bëgg gis yeewi askan wi ndaxte kenn umpulewul ces trois dernières années le combat de yeewi askan wi pour la démocratie le combat de yeewi askan wi pour les libertés et yeewi askan wi ne va jamais faillir boo leen gisee li xew actuellement ba ñuy repousser élection li ko waral en premier Yewwi Askan Wi parce que beaucoup de tentatives ont existé pour diviser ay leaders Yewwi Askan Wi beaucoup de tentatives ont existé pour ne pas avoir de candidat Yewwi Askan beaucoup de tentatives ont existé pour ne pas voir quelqu'un venant de Pastef être candidat mais jam ak pexeem yàlla ak dogalam président Macky Sall il a été surpris de voir que parmi les vingt candidats il y a six candidats issus de Yewwi Askan Wi six Déthié Fall Diomaye Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye Mamadou Aliou Dia Malick Gakou une surprise totale mais ce qu'il a ignoré c'est que nous avons travaillé avec compétence, avec rigueur, avec efficacité. Ce qu'il la également ignoré, nous avons une forte expérience des élections, comparable à l'expérience de tout un chacun bi nga xam ni mi ngi ci yeneen appareil. C'est ça qui a fait que parmi ces 20 nous avons six issus de Yewwi Askan Wi et il sait pertinemment que s'il organise des élections ce sera Yewwi Askan Wi ou Yewwi Askan Wi et il est persuadé qu'il n'était même plus évident que son candidat soit au deuxième tour et qu'il était même très probable que deux candidats de Yewwi Askan Wi soient au deuxième tour et c'est ça la vérité qui a fait que d'un coup brutal il a arrêté l'organisation des élections mais c'est peine perdue c'est peine perdue parce qu'ils sont des millions de Sénégalais yi nga xam ni nooyiwuñu gëmuñu lu dul Yewwi Askan Wi Parce que on a été là, toujours là, à leur côté. On a bravé le gaz lacrymogènes. On s'est sacrifié, on a donné notre vie pour la nation. amuñu jotu leneen amuñu jotu keneen lu jotu li nga xam ni moom la askan wi bëgg looloo tax askan wi jox ñu cette confiance looloo tax mu xam ni organiser noonu élection mooy Yewwi wala Yewwi jël na ko mais loolu waru ko mën a yóbbee muy dàq ay élection ñu taxaw di seetaan dàq ay élection ñu taxaw di seetaan mbiru chaque sénégalaise la ak chaque sénégalais et c'est un combattant qui vous parle mbir bu la ñoree day laaj taxawaay mbir bu la ñoree day laaj jéego le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l'histoire le concernant c'est quelqu'un aujourd'hui qui a délibérément choisi la petite porte de l'histoire alors malgré la mu jotoon def ku nekk naqarlu ko nit ñi gëmm ci à la ni ko organiser élection nga dem mu mënoon organiser élection yooyu dem mais mu plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible ku xam réew ni muy tëddee ni mu bindoo est économiquement paralysé parce que boo demee ba perdre la confiance des investisseurs qu'ils soient nationaux ou des investisseurs étrangers xam nga ni amatoo issue et est-ce qu'il a le droit aujourd'hui avec ku nekk la nga def ku nekk taxawaay ba nga am ku nekk li nga jot dugal biir Sénégal pour bànneexu boppam coobare boppam mu paralyser tout un pays jël dix-huit millions de Sénégalais qui ont toujours été respectés partout dans le monde foo mën a nekk ci biir réew ak bitim réew ñu respecté la mu jël ce respect là aujourd'hui tàggatengeel ko ba nga xam ni kenn mënatul jël chaîne booy seetaan te doo gis ñuy chahuter le Sénégal il n'a pas ce droit là et on ne lui laissera pas ce droit là nous remercions tous les partenaires yi nga xam ni ñoo ngi agir ñoo ngi wax que ce soit les États-Unis la CEDEAO l'Union européenne képp ki nga xam ni yaa ngi yëkkati sa kàddu nous te remercions mais que chaque Sénégalais chaque Sénégalais yokku taxawaayam parce que in